turandooy soxna Xadi mi nga xam ne moom mooy waajuru Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou amaloon nañ ziar bu mag boo xam ne ñu ko defee ci kanamu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou ci aljuma dëppoo nag le 27 mai 2022 di ziar boo xam ni at mu jot daañu dem ci kanamu Serigne Cheikh Saliou jébbal ko seenu àddiya mu ñaan leen. ñoom mbooleem turandooy soxna Xadi mi nga xam ni mooy waajuru sëriñ Cheikh bi ñu agsee jëbal nañ sëriñ bi seen addiya mu toll ci un million de francs CFA te am yéene at mi di ñëw ñu indi addiya ju ko gën a kawe ñi nga ànd ak yéen ci ziare soxna Khady Mbacke moom Serigne Saliou ñu toogoog nag koo xam ne euh, kenn la ci dongoy tërbiye yi waaye nag kenn la ci ñi nga xam ne soxna Khady nekkoon na seen yaay daara ci jamonoy Serigne Saliou ji njëkk nag cee jamonoy xabbaan jaag yi ca aju mu di Serigne Makhtar Jaxate yal na yàlla dolli fanam ak wéram ba eh, ak kattanam ba yéene ji mu am ci liggéeyal Serigne bi ginnaawam sun borom may ko kattan maagale ko kon sëñ Makhtar tey jii ñu ngi fàttaliku sa yaayi daara. tey jii ñi ngay fàttaliku soxna su baax di soxna Xadi moom Serigne Saliou ana yan kàddu nga mën a yëkkati jëm ci dunduk soxna Xadi ci biir daara ji. moom de moom nit la koo xam ne moom buñ koy fàttaliku euh, day soxna soo xam ni neex naa waxe jafe naa waxe waaye xam naa liñ ci mën a wax daal mooy soxna su sell euh, soxna su su set su jub soxna su soo xam ne jàmbaar la. ci liggéeyal sëñ Saliou kenn mënu ko ci waar bi soxna su mën a muñ soxna su nangoo dimbali ab néew doole rawatina ci ab donga man nag rawatina ci man ndax man bi may ñëw fii man dama dama aajo woon ak laddali waaw damaa joon ak laaj te mu yërëm ma lool rawatina ji nag yaay boppam dañuy wax soona Mame Bousso Touré ndax laajoon naa laddali wéré di woon na lool itam nag soxna Mame Bousso Touré moom la ma daan jàpp sama loxo di ma yóbbu kër docteur di ma yóbbu fan di ma faj di ma faj nga xam ne booba ak mag mag gi ak ñàkk sawar gi lépp ak wéré gi lépp a ngi ci moom waaye téewut bu bu mël fowoo rek daal di jàpp sama loxo bi fu ne yóbbu na ma fa soxna Xadi itam doon sama ndey daara joo xam ni booba tumuranke yomb na lool ci kër gi ndax li fi bi nekk du bari te te te te te doy na waar lool waaye di ma fàttaliku di ma fajal di ma jox may lekk la muy la lekk di jafe-jafe la la muy joxe njabootam mu di ko bokk ak man te loolu duma ko fàtte mukk ci àddina doon ku laabiir doon ko xëy du jàpp mer doon ko xëy du jàpp mer du du du di jéggale du topp kenn itam daa fab jikkoom ànd koog àddina ànd koog ànd koog ñëpp benn ci man mii de daanaa ko romb sëñ bi yónni ma ma waaxuy wéy weesu ko waaye sàllaa bu ma ko weesoo dafa may waat ma ñëw ni ma wala mu ne boo àggalee dikkal ma àggalee ñëw mu ne ma jekkil fii ci suuf ma jekki mu ni ma nuyu ma ma ne ko mbàkki balla mu ne waaw barki Seex Saaliw Mbàkke mu ne ma mbàkki bal la mu ni ma jugal dem moo tax ma ni ñëpp moo ma ci gënal ndax mënoon na ma mënoon na ma koo jàppe mbaa mu mere ma mbaa mu ni ma ku ñàkk yëg a ngi nii génn ci man waaye daf may ba muy ñëw mu ni ma toogal ma toog mu ni ma nuyu ma ma ne ko mbàkke bàll mu ni waaw kay man ngaa jóg dem na <laughs> xam nga loolu suñ bi dafa neex moo tax ma ni ñëpp moo ma ci gën ndax ndax lii lii ku yëg ku yëgee nit nii bëgg nit nii soppi nit nii man koo mere man koo man man koo woyefal ba noppi doxi doxin wii loolu dafa neex mm-hmm. te nag ñu tumuranke woon la ñu ñu tumalanke woon lañ tumalanke gu métti ndax booba kër gi métti na jafe na sallaaw euh, ba ci ba waxuma sax toogaay booba waaye ci biir toogaayu Serigne Saliou Mbacke ci xalif général di murid gi man maa toog sëñ bi ni ma ma téqat jàpp nañ ni bu ma demee ba toog jataay bu mel nii teraanga yi toll nii tumuranke dañ waaye nag ba léegi seenu tumuranke dañu daan xam nga la ko waral ma ni ku ah, man di loolu mbakke bëgg naa ko xam mu ne ma li fiy ñëw li muy bari bari liñ ci sa liñ ci sañ a jëriñoo daa bëriwut. li fiy ñëw mu bari li muy bari bari liñ ci sañ a jëriñoo bëriwut loolu waral seen tumuraanke. laa ilaaha illallah. nga xam ne kon ba bi ñuy dem. ci tumuraanke lañ nekkoon. allahu ko laa ilaaha illallah ndax mënoon nañoo dund ci yan daara nga gën a fàttali ko soxna Xadi am liggéey daara joo dégg ñu ni sëñ bi am na ko. sant na ko liggéeyal na fa sëñ bi am fa ngërëm. ba ci njurul gi ci mujj. te te te te te ci biir loolu moom moom moom mësuñu am fu ñu dëkk ah. ndax fii ne bu masaa di taw dañuy fab ay paan teg ko ci kaw lal bi paan bu fees ñu génn ko sànni ci biti ngir seen waaw ngir seen wol mi itam di jaar seen dugg néeg yi jàll tum ñu tumuranke lañ woon sëñ bi lekk gi tamit daanaka noonu la demee woon naka noonu la demee woon booba booba booba mën ngaa toog fii ci bu kër gi mën ngaa xëy toog ba jant so doo gis gan gu dugg genn gan déedéet déedéet genn gan gu dugg te sëñ beet dafay jaar fii ci xëy ga lay taxaw daal di may wóolu ma ñëw mu daal di may batale daal di jàll xabban baa mu jàll kon baa mu jàll jëleen daara fii déedéet du fi toog du fi wàcc <laughs> boole ci wiridi daa mujjoon sax man ma saxoo lu lu ñëw ci wér di euh, euh, ak ak ordonnance rek ma dem ci sëñ son yi ba sëñ son yi bu tuddee ma ambulance far. ambulance ah, waaw ambulance daa ñëw ba ma ne ko ah waaw ñëw naa de. mu ne jël leen kayit yi dem toppatoo ji ko bu ñu toppatoo lépp jox ma bind ko ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw toppatoo leen. waaye metti woon na lool. kon nag soxna Xadi moomee day ah man de lii de lii de lii de waxuma la lii de waaye lii de Touba gépp ko ko war a defal. mérite na ko de. ndax liggéey na ko muñ na ko. muñ gu dem na lu ko jar kon nag ah, yàlla na fi yàlla bàyyi njabootam te sama borom it fa mu nekk yàlla ko fa yàlla fa mu nekk ko gënal addina fa mu nekk yàlla ko fa taraangay sëñ Salim Mbacke fekk ak leeram amin amin te sama borom yaatal ko ci dara ji sëñ bi sama borom tax na ci barkeem nag may nu fan gudd may nu wér waaw ah, nu yàgg koo ñaanal yàgg koo liggéeyal sëñ Cheikh mii kii rakkam it sama bàyyi leen fi ba lu ñu yéene lépp sama def ko ci dara ji sëñ Salim jërëjëf kon euh, Baye Moussa yaa jot a dégg kàddu yi sëñ euh, euh, Makhtar Diakhaté yëkkati seere ko ci dund ak jaar-jaar soxna Khady fii ci daara yi Serigne yow yan kàddu ngay mën a fàttaliku dund ko ak soxna ci bisub tayam bi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne man de sama lépp ci sant Serigne Saliou rek la. di sant Serigne Saliou rek la sëñ ma Mataare li mu wax daanaka di ci teg dara amul solo ndax man lu mat a wax lépp waxal naa ko ci bànd bi ma defal bëkk démb kon nag di ci waxaat day mel ni du am solo ndax ma Mataare li mu wax doy na sëkk sëkk dara luñ ci war doole amul man de xam naa leen miin naa leen ndax ah, fukki at yi sëñ bi nekk ak juróom-ñaar yëpp maa leen di jox dépasse kon xam naa leen bu baax a baax a baax soxna Xadi dey man li ma xam ci moom saa bu sëñ Massa am gone gu ndaw goo xam ne gii néew na doole te mënul mënul gu dara day wax yéen di ko xadi mu yoral ma ko ba mu doon dara foofa lay ne mu di ko laddante loolu nagub cër la bu rëy rëy sang bu sell bu tedd bu baax bi ne mi ngi leen di nuyu kon nag ñun ñëpp nan àndandoo nuyu ko nuyu yow bu rafet te ñaanal ko sunu borom yàggal fi te boole ci ak wér seen jataay bii jataay la boo xamante ne bu mu bàyyi xel la mi ngi leen doon seenu ci suba léegi yàlla dogal ngeen doog a mën a agsi soxna muslim mi nga xam ne moo ne ci kanam wax na ko laxasu gi ngeen laxasu ak takku gi ngeen takku ak pastéef bi te xam na ni moom xëy na sax woon na leen waaye nag ni ngeen ko wuysee moom soxna Mously loolu sedd na xolam mu ànd ak yéen nag ñëw ci kanam kilifaam kanam sunu kilifa kanam boroom kër gi kanam ki nu tax a jug di ko siyaar si muy Serigne Cheikh mu Serigne Saliou wala fi nag dañuy wax ne tàgge bu ne dafa am jàppal ma diw lépp li ko waral mooy jëmmi soxna Xadi Mbakke radiyallahu anha mu nekk koo xam ni des ci xoli yu bëree bari bëri ci ñi nga xam ne jaar nañ ci loxol Serigne Saliou di koo xam ne tey fi may tàmbalee sama kàddu gu sori lay doon ndax keroog ba ko sun borom wàccee ab liggéey mas naa ko wax sax Serigne bi xuma dana ko fàtteem déet ba ma ubbee bi def sama listixaaru bopp ci mbiram. maa ngi yemoon ci inna lasina amanu wa hamilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhar ba ca an alhamdulilahi rabbil loola nag mbir mu rëy la waaye li muy rëy rëy nag moom jëm jooju dafa attan loolu ndax dafa nekkoon koo xam ni dëgg-dëgg ab jullit la dëgg-dëgg ab taalube la nekkoon koo xam ne ab xol mënee su ko koo gën a rafetle am xel di su ko ko gën a rafetle jëfe di su ko gën a rafetle nekkoon nag koo xam ni la sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci suratul Haqaaf muy fasbir kama sabar ulul hasmi am muñ kat la boo xamante ni bii dafay mel ni muñam googee àndoon ak ndigal ndax dafa doon dajeeg lu jar muñ ndax dafa nekkoon jëmm joo xam ne suba gu daana am lu ko xëy jar muñ am lu dox ak moom bëccëg lu jar muñ am lu gont moom lu jar muñ mësta won dara wax naa ko fee léegi nee naa leen ku ko xam man ngaa seere ni bu toogee ci néegu kaskare ñaari bunti sarale jàll jenn jëmm taxaw ci bunt bi di ko tagg jeneen jëmm taxaw ci bunt bee di ko xarab la mu yor ci aw di leen ko séddale kay xarab du yées ab cër ka koy tagg kon moom mbindi fi mi ngi doon xool ci ñoom jëmmi Serigne Saliou di xool ci ñoom jëmmi suñu borom man it am naa yóbbante buñ ma yóbbante woon daaw ak daaw jéeg te waxuguma koon wax naa leen ko maa ngi koy baamu fii ci kanam Serigne bi dafa am donga bu ñuy wax Serigne Saliou Guèye Bay Guèye Mbour di waajuram moo doon ko bëggoon soxna si nag te daan jaxasoo ak moom mu nettali man dafa am at moo xam ni dafa yor taxi bu màggat nga xam ne def ca gasoil képp tëna ko waxuma la ak wuccelu muy def këram ak tabaski di agsi mu solu dàllam di doxi soxnaa mi tamit ñëw ci soxna Xadi ba mu ñëwee nuyoo ak moom soxna se ni ko ana sëñ Saal Gueye mu ni ko ma ca kër ga mu ni ko mbaam nam tabaski mu ni ko ah, bàyyiwuma ko ca kër ga de ne ab diir la toog mu fecc ab pos-pos dindi ñaari téeméer jox ko ni ko jëlal gàtt bi yóbbaale ko ko bala testé ci di sonni ci wut te yomb am du yomb loolu nag bor la boo xamante ne bii maa ngi koy nett ngir seere waaye nag maa ngi koy nett lii ngir sëñ saali Guèye mi loolu jaaroon ci moom te mu ñor ko fee ca kër ga waxoon naa leen ni am na jëmm ju baax ju takkoo woon ak sëriñ Saliou te amoon cër lool ci soxna Xadim loolu sëñ Matar Jaxate mii moo ma nettali la ma waxoon te mënu ma woon a tudd aw turam waaye ginnaaw teew na mën naa ko tudd ndax man lu may wax jalu muus la ku wàq gis nee na ma soxna Xadi boo ma masaana séq ak moom loo xam day defe ne da nga koo mere ne bu la séenee ngay wéy dafa lay woo bu la wooyee ba nga ñëw ba toog ci kanamam nga defe ne loola la la lay wax mun la nuyu ma nga nuyoo mu tàllal la loo xam ne mën ngaa dem kon doonut ko daan yar yaral kenn ci lenn loo xamante ne bii lu war a dox digganteem nit la te it li ko seere ci ay donga ni suuf la toll te ko ne ngay seere mooy dañ daa daje fii ci kër gi ba doon ab groupe te boobu kër gi neexut boo xamee ni def nay lawraatam ci yoor-yoor bi ba gàddu ba ba ŋàbb kurusam tegoo ab sërëm ba ñëwee ñu nekk fii ñu ni diw ak diw ak diw muy lu leen dal kii jàmbat biirub tàññ kii jàmbat biir buy metti kii jàmbat bopp metti kii jàmbat ay góom. bu demee la muy def mooy ndiir su gàtt mu andi leen laaxu bisaab wala dëxin wala mbaxal mu neex a neex ndax looy fajal nit rawatib donga na ca ne ca rek gaay bu ca jógee nag tàmbali li ma wa leen waxoon léegi fajum docteur loo ci xam ne mën na ko wala sëñ bi def lu na ko alhamdulilah loo ci xam ne nag dañuy dem ci wolof yi bañ ta sol aw dàllam dox ko wala mu yónni ca ndaw jëmm ngoogu joo xam ne jëfam rafetoon na rafetaay goo xam ne ko toog fii di ko wax doo fi jug tayit Seydina Ali ibnu Karamallahu eh, ta dafa wax ni wa xadru kulli imri'in ma kaana sunoo ku ne sa daraja mii ngi ca la nga def ci lu rafet kon day mel ne doxin wu sell wu rafet wooyu nga xam ne doon na ko siq ak donga yi ngir jëmmi yàlla sun borom ngir jëmmi Serigne Saliou ngir fonk doomu aadama ngir fees dell ak njariñ te fa sa jariñe yàlla ko sun borom fay waaye ci biir loola itam nag nun am na luñ mën a jànge ci moom te war ka caa jànge te wax naa leen ni yéen ñii nga xam ne dañu leen a tudde ay soxna Xadi ak ñi leen jur ak ñi leen bàjjanu ak ña fa yaroo ku leen gis ta xam ci yéen dara dana leen naw dana leen ñee dana xam ni ka leen yar mën naa yar ndax wax naa leen jigéen dem kër ab diir te del si wut yombut waaye moom dañu ma doon toqe ku fi ci waaye dem kala yor ba fekkee dëkk ca gott bala ko yàlla wërsëgal da danga am muñ gu toll ni man ca ànd moom waxoon naa leen léegi ne dem sa yi doo dellusi nag yàlla ko du dogal waaye ku dellusi bu ñu toppee lay ya daañu xam ne lu yàlla dogal la waaye du yàqu gu ne ci moom kon loolee it se lañ koy sante moom lañ koy gërëme te ci biir doxee na wu sell woo mu doon dox nag dafa am waneen doxee nu ruwum ci boole woon mooy bu la gisee dana waxtaan ak yow ba xam yow lan mooy sayte ci kër gi bu fekkee faju woo sëñ bi woowu la fi lam lay njëkk a xiirtal mooy dellul ca daara ja nangu la muñ te wéy ci ndigal ba am ngërëm ab coono yàggut te boo amee ngërëm tàggoog coono bi. nee naa la daa nga gis donga bu ne ci kër gi boo añ jotee wala reer jot day am problème ndax kër son xat lañ ko daan defee te doo fa ñemee dem ndax fekk na waxoon naag yow ban la demal ca daara jete di moo xanaa guddi daal nga ruusaan waaye doo ñemee tee jàkkaarloog moom kon damay wax ne noonee mu doon toppatoo jëmm yi ci di leen jox ñuy lekk ka naan na la doon toppatoo ruu ci di leen marali ak sëriñ Saliou ak di leen jaarloo ca yoon wu ñu war a jaar damay wax ne ñenn daal laa yërëmoon te sama bët ko doon woon mooy ñi muy yaral boppam mos leen a bàyyi ci ak neen fu ñu toll ñu ngi dukk dukkee ka def te lii di xew ci kër yu kër yu mag yi ci ab teesante ak jikko yu ñaaw ak i xuloo ak i boddante loolu yàlla musaloon na leen ci. waxoon naa leen ni mboolem ñi mu yar laata ñuy jóge fii kenn ku ci ne taal na la ba nga doon ab làmp ku ci ne ñi ma xam fa ñu ne doy nañ fa ab làmp sëkk kon damay wax ne jëmma ngoogee di sona xadi fu mu toll ay yiw di dolli ci moom lan mooy dolli yiw yi mooy boo tàggatee nit ba mu baax la mu baax le te di ko jëf fa nga mën ne sa da cee dikk te li mu tàggat ci ay nit li mu jëriñ ci ay nit li mu soowee ci ay nit ni suuf la toll li mbooloo mi di bari bari ak soxna muslim mi woote ni ci xolam di sedd sedd ku xam li bëgg soxna xadi ci waa kër sëñ saaliwu da ngay xam ne bu waataay wi gënee yokku boo léegi mbooloo mi gën dolli waaye yéen ñii nga xam ne jot ngeen a dikk nag sant leen seen borom te ñee seen bopp ndax jëf ngeen lu ko mat ndax dañuy wax ne ku am lu kenn amul da def lu kenn defut wóor na leen ni soxna xadi ak tab la woon waaye ku xir la woon nag yaakaaruma ni ku doon topp siira ak li nu di ta xam fii ci réew mi ñu ne gis nga kenn kenn ku amoon ak tabam wala nga ak xiram dama cee doole ni ko yàlla jàppale woon la jàppale ak sun borom ngi mi ngi ci bu ma saana yooyu ñam wax ni fukki nit la war a suur dana ci mën a reggal fanweeri nit xaw ma woon loola lu mu nag waaye yàlla ko ko may damay wax ni xel maak njàmbaar gaak fidwa junjoon naa leen ca fee loo xam ne tuuti laa ci junjaat ca xew-xew ba xewoon njurul ba mu fa xewee bañ dem di ko lijjanti ji donga ya laxasaayu dafa jëlu kuuram génne da cay bokk ñëpp ni ko déet waaye ba mu génnee baa nga fa nga xamante ne bi ka defoon jëf ja fa la ne ba mu yëkkatee kuuram ga waaj a xàcc jaaseem ja nit yenu ko teg ci suuf ñu yenu ko andi ci kër ga yeew ko ca rat ga jëmm joojee dee xam nañ son xadi am na baatin ndax ba mu fa jugee dem ay naar la dajeel ñu tàpp ko ni ñuy defum xar te bañ ca jugee ñu ray ko kon nag nañu xam ne ki ñu àndal waliyatun min awliya illahi la mbiram dañ koy màggal dañ koy réyal la ñu cay nettalante ci suñ biirit dañ koy tonni ba mën a euh, dëppoo ak sunu xam ak sunum xel waaye duñ ko xóotal duñ ca xaabaabal waaye wa amma bi nixmati rabbika fa xaadis xéewaluk suñu borom la woon gu nekkoon fii ci kër gi te 77 bi ñuy toj ma toj marché bi la ma sëñ bi andi fii ma ne fi di fi jàng kon lu ma ci wax lu ne dafay mel ni xat xultu baytan waxoo xayru saahidi walay saman samheekal mu saahidi man dama mos xam li mu saf kon nag ñun ñii noo daje ci benn baat bi Serigne Touba waxoon xal yan fahul min jëlu lil xarsaani bilal timaasi sarxi lil bustaani ku amul xandoor yàlla si taw demal bayi kon li ngeen jëf mel na ni fu la wën a lool sell na lool rëy na lool waaye gën leen a dolli lu tax gën leen a dolli ki tax jëf ji jub moom mës jëf ba yëg ko te day daawut àndi ko te lu mu jugee loo nag lu mu mujj gën a baax la mu jugee kon maa ngi sàkku ci seen jëmm yi ngir pas-pas bi leen yëkkati ak rëyaayul gi li ngeen ne ngeen fàggul ci sëñ bi mu yàgg fi loolu te ànd ko wér fàggul ci seen bopp nu ñii néppit ñu sax ci ndigalam te aw ci ak bëggam te wattu ak tereem ku ci ne la mu bëgg na ko ñaanal boppam te ñaanal ko moroomam ndax jataay bu rëy la nu ne boo xam ne bu leen fàtte ni jëmm ji moom barab bii di sëriñ saa yu daana wax ni itte day kum dugal fii ba nga dugg ci mbaar mii am na yaakaar am na woolu ci la nga bëgg danga ko am kay kër këree a boox boox la bay jaari ca biir ka laqar ci ko nag dégguma ca woon loolu waaye mbaar mi daal ko ci nangoo dugg moo tax man saa fi accès doy na ma kon nun ñi fi nekkit nan sant yàlla tax ne nañ ci barab boo xam ne barabu faju aaj la ci nun nu waat nag sunu cant ak sunu ngërëm jagleel ko sëriñ bii cant gee ngërëm lépp ñu def ko ak ñaan ñaan gi moo nu gën a xam la mu bëgg waaye nun am na lu bëgg te leen bëgg nag dañ cee dogu mu yàgg fi lool nuy aw ci yoon wu gërëm loo ndax moom kat wa in tutiihu tahtadoo yàlla ko takkaloon yonente bi waaye xam naa ko ko topp dëgg a jub waaye damay wax ni ab yaafus du ànd ak moom nit ku jubut du ànd moom ku séeneen du ànd ak moom nit ku jubal ku dëggu ku ne ci lu baax ku ne ca la la war kooko mën a ànd ak moom damay wax ni ndiir si nga xamante ne bii danaa di dégg ay kàddoom wala may gis ay jëfam mosuma dégg mu tudd doomu aadama teg ca safaan ba damay garanteel ne lu waay man a ne te jaxasoog moom boo accès baat boo lay resetu doo ko dégg ci moom donte ne bu jëfee nag nga xam la mu ne ak la mu néewul waaye la mu ne te loolaay la yàlla gërëm yàlla na nu suñu borom xiit la ñu ne ñu ne ca loola. soxna yi ci ràññiku nag jóge barab yu sori na seen xol sedd soxna Maguette xool soxna si waxoon na ma ko man maa la mën a gut a xam ndax di la doog gis waaye noonu naa la dana toogak sëñ bi wax ko ko te sëñ bi nag buñ toogee sax lañ ko waxul la gën a xam ci la lañ ko wax. ndax maanaam man bu ma taxee di wax damay wax ne lu ma wax ko bu teey ca ndax lu leer lay doon. yaral xafaaya bi ay bi aynil xalbi saahiratan kama yusaahidu ma taxtal akinnaati moom rek laa gis sëriñ boo xam ne boo séqee moom la nga koy nëbb day mel ni moom la gën a ko wax. demoon naa fi tiwaawoon. kër ma Modou Bëggey baat boobee ma fooxoon del si na fii ku ne ci jataay bi te siyaar si ak dundal mbirum soxna si taxalaa jug jàkkaarloo ak sëriñ bii am na loo ca jëlee loo xam ne sëñ Tuubaa waxoon ñu jàng ko ngeen dégg fa nasratul hubbi min ash-shaykh ila muridi hiya al-masaya wal xula boo sëriñ mu xool la bëtub cofeel ak yërmande sa lépp baax na te ku toog ci jataay bi jàppal ne loolu am nga ko kon ki sës fii ak ca pegg ba ñëpp a yem ndax mbirum sunu borom moom day matale bu jugee kon nañ jàpp ne rek sunu borom may nañu aaju ju faju may nu mbir mu jug ci barkab sëriñ bi